Mbacke nee na nga leeral am na murit nee am na murit am muraat am muraat mariit am mariit ak meret ak meret ak mariirandoo ak mariirandoo ak muraake ak muraake danaan dégg nag neen danaan dégg nag eh, eh, cuun mee di wax ni cuun mee di wax ni sànq sànq ma dégg lu mu ngi bërëxal li ngeen bërëxal sànq mu ngi dugg si nee na sànq li ngeen den bërëxal bi muy dugg si mën ko waxaat na door a continuer. nee na mën ngeen a bëri xalaat ngeen waxaat ko kon mu doog a continuer. Cheikh Gueye bisimilah. Cheikh Gueye bisimilah. yàlla neex na lool jërëjëf Seck nee na mu ngi ñëwaat. kon sànq mu ngi bëggal ginnaaw baas bi. nee na sànq mu ngi leen dégg ngeen di ko defal ci biir baas bi. ci ginnaaw baas bi. am na nu mu ko doon waxee de. nee na sànq mu ngi koy dégg ngeen ko doon wax sànq. dem ba si ba si di jamono. jamono. xam na na nag gars yi xam na ne nag yi moo leen jàpp rek Abdoulaye Sylla bu mu gën a gore waaye nee na Abdoulaye Sylla bu mu ñu gën a gore waaye nag ci ñëwaat léegi nag ci waxtaan nee na mu ngi ñëwaat léegi ci waxtaan wi ak ñi fi yebal ak ñi fi yebal waaye Pam Ndiaye waaye Pam Ndiaye mam Bamba Kabar Géej nee na Pam Ndiaye Bongo mam Bamba Kabar Géej bagante nii nee na nga ñëw bagante nii nee na bëggal nañu ci ma Bamba Kabar Géej mu doog eggale Pam Ndiaye bi def gay mi nga xamante ni moom moo leen jiite ak Modou Gueye ak mbay xulle nee na ak mboolem jëriñu bàyyiwu ci kenn sëriñ bi nee na mu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax nee na waa kër Ndiobba beneen yoon na ngeen fexe ba yaatal ko ba ñëpp yëg ko mën cee ñëw yii feeg mu ngi yii feeg mu ngi fi dalal leen seen xel dalal leen seen xel yii muy waaj wax nee na mu ngi fi pink fekk nguur gi yàlla gaa ngi sax ñu teewlu ñu teewlu kàddu sëriñ bi sëriñ bi nee na yii fekk mu ngi fi fekk nguur yàlla gi mu ngi sax fekk nguur yàlla yaa ngi sax nee na fekk nguurug yàlla gi mu ngi sax nee na bul ragal buur xam ne yàlla moo yore lépp te xam ni yàlla suñu borom moo yor lépp. yàlla yaa ngi fees. nee na feeg magasin yàlla yi ñu ngi fees. nee na bul tiit ci affaire xiif. yàlla fàttewu la. te xam ni yow jàmm bi yàlla fàttewu la. feeg yàlla waxu la lu la neex defal. nee na feeg yàlla waxu la lu la neex defal. na nga sax ci ak moytu. ak tuub. feeg déggoo. nee na feeg déggoo. ñu tàggee Iblis. ñu tàggee Iblis. day ngay taal sa rajo rek. dégg ñu tàgge Iblis. dégg ne ko tàgge nañ Iblis. fekk déggoo ñu tàgge ko. nee na fekk déggoo ñu tàggee ko. bul dalal sa xel mukk. sa xel mukk. yaakaar ni kenn mënu laa yaakaar ni yow mii kenn mënu laa jékku. fekk ba pare. neena na fekk woo siraat ba pare. bul mës a bàkk wala nga damu mukk. nee na bul mës a bàkk mukk mbaa nga damu mukk. ndamu mbaa nga na feeg siraat bul ndamu mbaa nga tiitaru. yaakaar ni dafa dugg àjjana. fekk nguuru yàlla gaa ngi sax. fekk nguuru yàlla gi mu ngi sax. pexem yàlla du jeex. pexem yàlla bu suñu borom du jeex mukk. falaa yaamunu. falaa yaamunu. makarallaahi. makarallaahi. ilal xawma xaasiran. ilal xawma xaasiran. ilal xawma xaasiran. xaasiran. Samba. Samba. borom yiir gi. nee na nga ñëw ci borom yéen gi Cheikh Abdourahmane Mbacké jàmbaari Darou Salam ji nee na mu a ko continuer ca Cheikh Abdourahmane jàmbaar ji borom yéen mu xañ la ajanam nga xañ ko sàkk sarax nga xañ ko sàkk sarax mu xañ la gudd fan mu xañ la ak gudd fan nga xañ ko teel a yeewu nga xañ ko teel a yeewu mu xañ la wërsëgam mu xañ la wërsëgam allahu akbar dafa musa ku ñëw xaatikatu nee na dafa am benn waay bu ñëw musa wax xaatikatu xaatikatu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku moom du ma ko may waa du ma ko may waa kër Ndiob moom sëriñ bi nee na loolu nag du ko may waa kër Ndiob soxna si du ma leen ko may nee na loolu du leen ko may soxna si may xaatikatu du ma leen ko may nee na soxna soosu du leen ko may xaatikatu ndax sina Aboubacar moo ko Abdoulaye Aboubacar moo njëkk a takk ndax Abdoulaye moo ko njëkk a takk moo ko njëkk a takk moo ko njëkk a denc soxna dem ci xarab xeebar dem ci xare xeebar ñu rey ko fa ñu rey ko fa gay muy ñaata benn gay muy ñaata muy benn muy benn mbag mu muur mu muur ba summi nee na kooku mu muuru ba simmi muuragum na benn nee na kooku nag muuragum na benn muuru jëfar yëfar ibnu abi talib ibnu abi talib takk ko takk ko dañ ko xam muuta dem ci xadi muxta xare muxta dem ci xare bu ñuy wax muxta ñu dagg ñaari loxo yi ñu dagg fa ñaari loxo yi ak ñaari tànk yi ak ñaari tànk yi mu faatu gaay mu solagul ñaata gaay mu solagul ñaata ñaar mbàcc ba mu muuroo ba simmi ba mu muuroo ba simmi Omar ibnu Xataab Omar ibnu Xataab teg ko takk ko dem ci xarab saam dem ci xarab saam Sidina Omar Sidina Omar ñëw ci biir jàkka ji ñëw sa biir jàkka ji di jubbanti sàkk papa yi di jubbanti sàpp si ñu jam ko ñu jam ko biir ci biir ba buti di génn ba buti di génn mu dem këram mu dem këram ñu koy rawale këram ñu koy rawale ci këram faatu mu far faatu ci biir jàkka ji ci biir jàkka ji lañ ko jamee lañ ko jamee muy ñaata gars yi kon kooku muur na ñett mu muur ba simi mu muur ba simi si biirum na xama Subayr mu Muhammad Hawaam. Subayr ibnu Hawaam. Subayr ibnu Hawaam. takk ko takk ko. dem xareb saam. dem xareb saam. ñu rey ko fa ñu rey ko fa. gaay mi ñaata. gaay mi ñaata ñeenti mbagg. Pam Ndiaye. Pam Ndiaye Bongo. demal ma dem demal. yaa gën Muhammad. door a ñaanalante. ñu door a ñaanalante. waaye juróom benn ju ñu ngi ñu ngi nuyu imaam nag ak chef de ak ñëpp. waaye nee na mu ngi nuyu imaam ak chef de quartier ak kilifa yëpp. ak waajuru xale yi nag yëpp. ak waajuru xale yi nga xam ne ñoo nekk si jotaay bi. baax di leen nee na mu ngi leen nuyu baax di leen sant bu baax. su leen neexoon duñ ma topp. ndax bu leen neexoon xale yi duñ leen topp duñ ko topp. ndax bu leen neexoon bu leen neexoon nag am nga neneen noo leen doxalee ci xale yi day metti ci topp sëriñ bi mais ànd gi ngeen ci ànd moo tax topp gi mën a woyof kon sëriñ bi nee mu ngi leen sant ci loolu baax di leen ci gërëm nee na mu ngi nuyu sëriñ Moustapha Niang moom moom sëriñ Mansour borom daara ji day def at mu nekk mu gane ko moo toog nii moo toog nii mu ngi nekk ci biir kër sëñ Mansour borom daara ji sama di xaritam li sëñ Mansour dam faral di wax ni xarit bu ni rëkk xarit bu ni rëkk te du la rëkk kii ci la bokk ah sëriñ bi nee na jëmm ji toog ci la bokk gis alaaj Ablaye Gueye taalibeem la alaaj Ablaye Gueye taalibeem la ni ma kaañ ànd ni ko kaañ ànd ñu seer ñu nuyu Sëriñ Mansour ñu dem ñu ziyaare Sëriñ Mansour si borom daara ji borom daara ji nga xamante moom nga xamante ak moom ndax ay mbokk ngeen ndax ñee ñaar ay mbokk ngeen maanaam mu fekk ko jëppal nee na mu fekk ko jëppal ba seer ji ko fekk ànd mu ànd alaaj Ablaye Gueye bi mu demee ànd ak alaaj Ablaye Gueye fekk ko jëppal fekk ko jëppal alaaji bi leeralee ba noppi bi ko alaaji Gueye leeralee ba noppi alaaji Ablaye bi mu ko leeralee ba noppi alaaji Ablaye Gueye bi mu ko leeralee ba noppi mu ne ko mbokk gi taxul ma jàpp mu ne ko mbokk gi taxul ma jàpp la alxuraan daaray alxuraan yi nga yor daaray alxuraan yi nga yor te ma dégg ko te ma dégg ko moo tax ma jàpp la moo tax ma jàpp la yow sëñ si di alxuraan mu ne ko nag si mu ne ko nag si mu ne ko si mu ne ko si man borom daara ji laa man borom daara ji laa waaye yow nag waaye yow nag yaay borom daara yi yaay borom daara yi mu ree mu ree naq ci loxom fees yëkkati xéewal gu bëri ci loxom ba mu fees dell ba mu fees dell dugal sama poos dugal ci poosam ma ni waat ma ni ko mu ni ko ehm, mu ña mu bu baax mu ne Serigne Sidi alxuraan ni ko ñaanal ma bu baax mu ñaanal ma bu baax mu ñaanal ko bu baax nag kóllëre googu kóllëre googu gis naa ni nga na gis na la yow ni ko téye ak ni ko sàmmee yal yàlla faale nan ko faale turu Seex Sidi bu leen ko faale Seex Sidi la yàlla faale na ko faale ku faale wul Seex Sidi bu leen ko faale asubilaahi mina seytaani rajiimi bismillaahi rahmaani rahiim wa mawlaana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman sidi alquran Mbakke sidi alquran muy falfale tey ko neex mu fal ngay fale kii mooy saahibul kumala kii mooy saahibul fudala alam fada ilu malam yoxuy ahadun ku dem fa moom nga xam ne kii mooy saahibul fudala moom raw na mboolem ñi yaaram ci wàllu ne soo daanu bii daanu fërëy naari la te na la moom sëriif la maamam sëriif la yaayam sëriif la baayam sëriif la Cheikh Abdourahmane sëriif la Cheikh Anta sëriif la Modou Mamoun sëriif la sëñ Mbàkke kan sëriif la maam Moroxa kan sëriif la sëñ Daam kan sëriif la maam Mariama kan sëriif la maam Busa kan sëriif la sëriifun bun sëriifun sëriifun bun sëriifun sëriifun tuuma jublu la duqati saati bu sa siyaakaat bu daw ku balaaj ku laaj lu may la nga jiijal seex sii du xaniw la xanaa man Pape Ndiaye joolu sëriñ sii dal Quraan may sax si di way sii dal Quraan ma kañ ko te way ko ndaxte mu doli ma ay may diw te ñaawareelu kañ boroomam yaa yor yo ma ci laa wax yaa yor yo fii may ma ci laa wax law laa ko set fii xéwal yi walwal ko duñu way sii daal quraan fadilun hasimun sirifun faarisun satinun mbakkin bu soobelo mbakkin bu soobelo mbakkin bu soobelo kii mooy njiit te may wasi la la dem na xéwal yi baawaante abadan ku soppi sii daal quraan xéwal wër ku àdduna moom dara la moom pour yàlla boobu kuy noonu suy daal xuraan mooy xëy di la jàngal ba ba la bindal kenn suy daal xuraan Cheikh Sidi la noo yar am yàtt jóguñu affaire ñu sant suy daal xuraan yëm ma foofu borom dara ji de sëriñ Siir alxuraan nee na yemul foofu moom ak borom daara ji de. bi mu naqee poosam ba mu fees. nee bi mu naqee poosam ba fees. ndax ndax ko nii. ndax sëñ Sidi alxuraan tani ko. man daara ji laa yor. man daara ji laa yor. waa yow si. yaa yor daara yi yaa yor daara yi. naq loxoom ba mu fees. nee na sëriñ Mansour si naq loxo ba mu fees. jox ma jox ko. ma ni ko. sëriñ Sidi alxuraan ni ko. dafa am lu ñu jaaxal ci yow nag. dafa am lu ñu jaaxal ci yow. mu ko waxee loolu. bi mu ko waxee loolu. sama mbokki tiyaan yi. nee na mbokku tijaanam yi sama xaritu tijaan yi ak xaritu tijaanam yi seen dënn yi rëcc seen dënn yi rëcc ci saal bi ci saal bi ni ah ma ko jëmm ji dafa am lu ma jaaxal ci moom mu ne ko jëmm ji dafa am lu ma jaaxal ci moom ñu gën a ron si nee na ñu gën a ron si gën a jige ñu leen seen wérdi sax seen wérdi yi toog di xool man ñëw sëkk si moom rëcciloo dënn tijaan yi nee na nag mu rëcciloo dënn tijaan yi ñu gën a gën maa jege nee na ñu gën koo jege gën koo bàyyi man leen jëmm ji dafa am lu ma jaaxal mu ne leen jëmm ji ni teg ñëpp ñu teg man leen sëriñ siin alxuraan ni leen dafa nekk njariñu kese dafa nekk njariñu kese tey ak ëllëg tey ak ëllëg te yombut a gis te yombut a gis allahu akbar moo tax juróom benn jikko yi moo tax juróom ku nekk ci yow. ku mu nekk ci yow. te nelaw. te dal ta nelaw. sa aljana leer na. sa aljana leer na. muy juróom benn jikko yi. muy juróom benn jikko yi. nekk ci yow. ku mu nekk ci yow. te nelaw. te dal te nelaw. sa aljana leer na. sa aljana leer na. ma leeral mu bàyyi ba déwén. sëriñ bi nee na mu leeral. wala mu bàyyi ba déwén. dégg nga de mu leeral wala mu bàyyi ba déwén. ah Mbacke nee nga leeral. bi ci sëriñ bi nee na bu ci njëkk day gëm yàlla bu wér nee na da ngay gëm yàlla bu wér nguuram gii ak nguuram gi bàyyee ko ko nga bàyyee ko moom bañ am lenn loo ci bokkaale na am lenn loo ci bokkaale ak moom juróom benn juróom benn la waxoon de sëriñ bi nee na juróom benn la waxoon de muy ñaata muy ñaata nga xam iblis bu wér nga xam iblis bu wér ay pexeem xam ay pexe iblis ay digal digleem wala ay digleem ay wala ay santaaneem nga lànkal ko ko nga lànkal ko ko bañal ko ko muy ñaata muy ñaar Mbàkke nga xam dëgg bu nga xam dëgg bu wér lu mu dal sa kaw lu mu dal sa kaw wala sa njaboot wala sa njaboot métti métti lu mu métti métti métti nga ñooxu ko nga ñooxu ko muy ñaata gars yi muy ñaata muy ñett mbàkk muy ñaata muy ñett nga xam ay caaxaan biir nga xam ay caaxaan bu wér neex neex caaxaan lu mu neex neex neex nga du muyu ko nga du muyu ko wan ko ginnaaw gars yi muy ñaata gars muy ñaata muy ñett mbàkk nga xam àdduna bu wér nga xam àdduna bu wér lu mu la wuy si wuy si lu la àdduna wuy si wuy si wuy si nga njuuy ko nee na nga njuuy ko wan ko ginnaaw muy ñaata juróom muy juróom mbàkk nga xam alaxira bu wér nga xam alaxira bu wér lu mu dansé dansé lu mu dansé dansé dansé nga ñooxu ko nga ñooxu ko juróom jikko yi juróom benn jikko yi nekk ci yow ku mu nekk ci yow tëddal te nelaw tëddal sa àjjana leer na sama man ci géej gi sama man ci jéeri man lambar naa ak mayomba basiidi alxuraan sama na man ci géej gi sama na man ci jéeri man yambar naa ma yamba basiidi alxuraan tum di jeewal bamba leen jaaxal duru ndar bamba leen jaaxal nda di jaaxal waa ndakaaru basiidi alxuraan fi muy tëjee nag sëriñ siidi nee na fu muy tëjee waxtaan wi mooy wa daayira wa daayira waxoon léegi. mu ni waa daayira bi nga xam ni moom la ñu waxoon léegi. daayira son muy daayira son. ak kuréel kër Ndiobba. ak kuréel kër Ndiobba. ngeen andi booloo. ngeen ànd mbooloo. jàngal ma fus. jàngal ko fus. mu door a mu door a àggale waxtaan bi. mu tëj mu tëj bisimilah. te nee na taraanga moom taraanga rek moo koy fay. kon jëwriñ kon jëwriñ Cheikh.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 nee na nag jëmu jooju bu mu leen gën a gore. keroog bi ñu jokkoo téléphone ci Dakar. sëriñ mi nee na keroog ñoom ñaar bi ñu jokkoo téléphone ci Dakar. ak yéen. moom ak yéen. fekk ñëw fa booba. fekk boobu ñeen ñii ñëw fa. moo ko moo ko mbay. nee na mu woo ko jox ko mbay weexal mii. ci la ci laa ko si la ko waxee ni ko. na ngeen jàpp Ablaye Sylla bu baax. da ngeen jàpp Ablaye Sylla bu baax. ngeen xàmmee tur ngeen xàmmee tur wi. bu baax. jàpp tur bu baax. Ablaye Sylla Ecotra. Ablaye Sylla. Ecotra. Ecotra moo leen defal teraanga ji. moo leen defal teraanga gi. musu bu fee teew nag. sëriñ bi nee na musu fee teew. di leen jàppaloo kenn. di leen jàppaloo kenn. tey la mos a toog ni leen jàpp leen Ablaye Sylla nee na tey la fi mos a toog ni leen jàpp ngeen xàmmee tur yi ngeen xàmmee tur yi xàmmee di ko suivre ko ku la jàppale da nga koy jàppale bu mu leen gën a gore bu mu leen gën a gore ci côté boobu na ko téye bu baax na ngeen ko bu baax baax baax baax a baax du ñàkk yéen ñeenti jëwriñ yëpp ñu jël seen numéro comme ci ñàkk ci ñeenti jëwriñ yi ñu jël seen numéro ñoom bu ñu tourné ba xaw a jege fii rek bu ko defee xaw a fii tamit région de Thiès région de Thiès bu ñu leen ko bu ñu leen ko yëgalee ngeen liwa ay kaar fekk lañ fañ nekk ngeen liwa ay kaar tamit fekk lañ fañ nekk ngeen jàppale leen waaw loolu mooy ndigal loolu mooy ndigal li bu mu leen gën a gore bu mu leen gën a gore te leen teral bu wér te leen a teral bu wér kon bul kon nag li ci des mooy delloo taraanga gi bu nag yéen ñeent yi jiite kon bu ko defee yen ñeent yi nga xam ne yéen a jiite daayira yi nañ jël seen numéro ngeen jël numéro ñaari jëmm yi toog waaw boo defee léegi ñoom ñoom nañ jël seen numéro ñoom dinañ jël seen numéro yéen lépp lu ñu tërnet lépp loo xamante ni ñu ngi si wala ñu nekk ba xaw fee jigee ba xaw fee jigee ba xaw fee jigee ba xaw fee jigee leen woo dina leen woo bu ñëwee ci dëkk bi tamit bu ñëwee ci dëkk bi tamit leen woo dina leen woo ñàkk sax ñoom ñu a am ñu seet si leen du ñàkk sax ñoom ñu seet si leen seet si seen bopp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 tàmbale ko sëñ Ndiéli Niang mi ak Serigne Saliou si la ñu àndal Serigne bi ñoom ñu ko téye nee xam na bu baax Serigne bi nee na kilifa àdduna bu nekk ñëw na fii ci moom digaat la yàlla xam doy na. waaye nee na ni ngeen tàmbalee sëriñ daara ji Serigne na rafetlu na ko bu baax a baax a baax. nee na li ngeen def fii le 10 waa Kër Faale ci oto xombal te wetu xombal daara yu faam le 10 lañ war a daje ñoom novembre ñu leen ko yëgal bu baax ndax foofu tamit invité leen ndax ñoom mbooloo mu takku lañ ndax ñoom tamit mbooloo mu takku lañ dëkk bi yëpp te dëkk bi yëpp sama waajur moo nekkoon seen sëriñ waajuram Cheikh Abdourahmane waliyu Daaru moo nekkoon seen sëriñ dëkk bu mag la dëkk bu mag la foofu bi mu làqoon ñëpp jëbal bi mu làqoon nag ñoom ñëpp ñëw yeesal seen njëbal ci jëmm ji seen ci alxuraan ajuma le 10 novembre la ajuma le 10 novembre ñoom nee na ñu ngay ñoom tamit seenu bis côté côté xombal la. ci côté xombal. ajuma le 10 novembre. ajuma le 10 novembre. aju ah, ah, takkusaan lay tàmbali ba timis. nee na takkusaan lay commencé ba timis. ah waaw baax waaw incha allah jërëjëf le 26 novembre waaw waaw daal dimanche incha allah baax allah ñu jox kàddu yi kilifa yi nag sëriñ bi nee na ñu ngi jox kàddu yi kilifa yi jigéen ñi jigéen ñi jigéen bi tamit ak jigéen ñu daayira yi ñu bëgg a ziar waaye leen di woo ci léegi ci a ziar leen woo léegi ñu ngeen ñëw ziar sëriñ Saliou sëriñ gaa ngi noonu kàddu gaa ngi noonu bismillah ziar chef de quartier bi ak ñëpp ñi fi toog Mbacke di jokkalante nuyu président Ablaye Sylla na dina wax ne président ñu kontaan na ci sa taxawaay gis na ni nga ko taxawoo yaa koy taxaw ci saayir ak ci baatin mhm. te loolu rek doy na lépp mhm. macha allah fépp foo xam ne nii li ñuy yëngu jàpp nga ne nar nañoo amal njariñ yaa ñu fay jokkalante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 ñun ñu ko defati yéen mi mu loo xam ne yéen a ngi rek ngeen woo jëwriñ téléphone rek bu ko aajoo tamit incha allah ñoom ñu ñëw bu aajee ñoom ñëpp tamit ñu maase ñëw incha allah ñu def ko déggee ndigal daal na bañ déggee ndigal tamit ñoom tamit am nañ yéen a ci loolu pour taxaw ci lool ndax jëwriñ mi Moodu mi wax na ko léegi léegi sëriñ bi nee na ñoom ñi xam na bu baax doo leen gën a gore mukk am na ñetti ñetti meer am na ñetti maire yoo xam ne ay yoo xam ne jamono ji ay maire lañ mii mooy seen sëriñ sëriñ si alxuraan nii mii mooy seen sëriñ nee na kon ñoom waxtaan na ñoom bañ nangul ma bañ nangul ko xam naa boobaa boo toogee kilifa gi rek boobaa incha allah xam naa ni boo toogee kilifa gi ak ñoom ñi ak ñoom ñi dana leen woo ñu ñëwaale dina leen woo ñu ñëwaale defaale seen déclaration ñoom tamit ñu defaale seen seen woote ndax ñoom waxtaan maa ngi maa ngi ndax ñoom tamit woote nañ tamit ba tënk ndax ñoom ñett ñoom ñoo gañee seen gox ndax ñoom ñetti ñëpp ñoom ñoo gañee seen gox wax na ma ñoom ba tënk wax na nga ñoom ba tënk fii moom suñu fii moom yàlla def na ni ñoom dégg nañ ndigal li bu baax a baax a baax a baax ñoom dinañ ko jëfe bu baax a baax a baax baax insha allah kon ñii préparé le dix kër faale dëkk bu mag la ñoom tamit dëkk bu mag la ñoom ñëpp tamit ñu jokk ci sëriñ si da alxuraan bu yàlla nu ko defee fii insha allah sëriñ bi noonu la ko fas yéene defaat foofu boo leen amee ay kër yor yor tamit ngeen àndaale ko foofu àndaale ko kër faale foofu insha Justice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 am rek war koo ëndaale rek ëndaale leen ko ëndaale leen ko te ngeen teg ko si loxoom incha mu waxtaan ak ñoom di leen ko jëfe bu baax incha allah yaa gore rek yow ko jàpp sa taalibe rek wallaahi laa si nga jàpp jigéen ñi nga xam ne ñoo war a siyaara te seex dama ko wax léegi mën nañoo jige si mën nañoo xaar tuuti kon samba fay mu ñamal ko ci baay siiri bi buñ noppee ñu jox biraan saar noppee ñu jox xaarim buñ noppee mu jox moora waaw bu tàmbalee nag. bu tàmbalee. da ngay fexe di bàggante nag. da ngay fexe tamit di bàggante. da ngay jàll ba ne la tuuti. da ba ne tuuti. xaw a bàggante ni xaw a bàggante waale. bàyyi siide bi da ciy amaale solo bàyyi siide bi. bu tàmbalee. kon buñ commencé. jigéen ñi mën nañoo ñëw ziare jigéen ñi mën ñëw ziare.